mbokk yi ñuy teewlu si Jàllale TV daal leen ak jàmm dañuy door addu jëmale ci mesure yu bees yi nga xam ne autorités yi daal nañ ko jël ngir daal di mën a te secteur foncier bi xeex nag lépp lu jëm ci ay tabax te dëppoowut ak yoon ay construction illégale ak spoliation foncière bépp bërëb boo xam ne daal nañ fa tabax te dëppoowul ak li la yoon may ñoom nag daal nañ ci jël ay mesures yu décisives ngir rekk daal di ciy taxaw Dakar Thiès ak Saint-Louis daal dinañu jot a suspendre boo xam ne jëm na ci wàllub suuf gi examiner maanaam càmbar document yu lié ak yooyu le tabax te saa si tembe mi ngi wéy ba tey te mën a xool nag ana lan moo cay yoon li ni mel nag DSCOS daal dina ci alerter xamal ni nag lépp loo xam ne tabax la fii ci mim réew te dëppawut ak yoon dinañ ko daal di raser dindi ko fi ba mu set xool la cay yoon ñu daal di koy jëmal directeur bu DSCOS nag ci kàddu yoo xamante ne ni daal na ko yëkkati xamle na ni nag bépp construction bu illégale dinañ ko daal di tasaare mu doon ak volonté boo xamante ne ni taxawal nañ ko fësal ko ngir mën a appliquer réglementation yoo xamante ne nekk na en vigueur maanaam dëppoo ak li yoon daal di maye ci lu ñeel nag euh, jëfandikoo suuf gi ak tabax goo xamante ni dañ koy taxawal ci bërëb bu mun ci doon itam ci ay kàddu yoo xamante ni ci xibaar gi nga xamante ni biral na ko ba tey nee na nag euh, dinañ daal di yàqate lépp loo xamante ni ay construction illégale la moom colonel Pape Sabouka njaay nekk patron bu Descos li ni mel la daal di xamle fii ci Ndakaaru nag bépp construction maanaam bépp liggéey boo xam ne ñeel na corniche bi ñi foofee itam euh, jëm ba Cap Manuel ak jàmmalaay jaare la ko ci teeru bi ak mosquée de la divinité hôtel King Fahd Palace ak plage bu Besseyao fépp foo xamante ne ni tabax nañ fa te dëppoowul dañ ko daal di tasaare corniche est bi Cap Manuel jëm ba plage bi nga xamante ni day wutali foofee ca yoon bu Tëngéej di Rufisque itam dañ fa daal di saytu ana lan moo waral taxawaay yenn ci ay tabax te dëppoowut ngir rekk ñu daal di sàmmonteeg réglementation yi nekk en vigueur yi duñ ca yam bande des filaos yi tamit concerne na boobu boobule liggéey ak décision yi nga xamante ni ñoom daal nañ ko ci jël yile mesure te jëwrin bu yees bi gàllool li jëm ci wàllu finance ak budget di Cheikh Diba maanaam ministre bi gàllool wàllu finance moom nag euh, daal na ci saisir directeur des impôts et domaines ngir nag ñu daal di résoudre maanaam saafara lépp loo xam ne moo jëm ci litige foncier te taxawal nag ak ordre maanaam jubal secteur ginimel ay laaj nag jot naa samp ci li ndax lii dafay ñëw ngir daal di saafara njàkkare gi nga xamante ne ni askan wi dañ koy faral di am ci lu jëm ci urbanisation ak ay problème yu jëm ci propriété foncière ci yenn ci ay bërëb ndax nag euh, nemmeeku di moo di région yu bëri ci Sénégal ñu bëri ci askan wi dañ leen di yëkkati ci seeni kër ñuy joytu suuf te nag ay autorité yi fare ci bopp réew mi ñooy faral nag di daal di xëccoo suuf gi ni tax nag ñoom secteur bi ni bëgg nañ koo réglementer ci anam yu mucc ayib ayib jamono yi nag ci jëm ci yooyu la tabax ñu lim te mu dikkee Sénégal ay milliards yu dul jeex ñoom nag daal nañ ci taxaw temm jël ci ay décision li jëm nag ci ay procédure domaniale foncière jamono yi daan nañ ko suspendre ci giir ngir daal di koy mën a càmbar leneen loo xamante ne ni dañ ko ci saytu itam moo di li jëm ci procédure de délivrance maanaam anam gi nga xamante ne noonu la ñuy jëbbalee nit ñi li jëm ci wàllub euh, titre foncière tam dinañ ko daal di xool lépp rek ngir daal di ci mën a dëppoo ak li yoon daal di tëral leneen ci xibaar bokk na ci taxawaay bi nga xam ne Macky Sall jamono yi daal dina ko am mu mel ni nag euh, politique bi génn gu ci moom Macky Sall di na lancé ak opération de remobilisation ci langue APR gi moom ancien président de la République daal na fas yéene yónnee ak délégation bu Alliance pour la République di APR samedi bi ñu dëtmal ci région bu Kolda Kaffrine ak Tamba naam nag nemmeeku wuñ teewaayam fii ci mim réew Macky Sall nag moom taxaw na te mu ngir daal di mobiliser waat ay troupam dajale leen waat bu baax ndax saa si bëggul bàyyi APR mu dee naam nag ñàkk pouvoir bi ñoom nag li sabab bi le tournée moo di rek daal di boole képp koo xamante ne ni militant APR nga waaye itam daal di remercier ñi nga xam ne ñoo leen jàppal mbag ci li ñu doon xeex boobaak léegi ngir waajal yeneen combat yoo xamante ne ni mi ngi ñëw ci kanam délégation gi ni mel nag sax mooy daal di représenté moom Macky Sall foofee ca Dakar ca Médina Gounass ngir mu daal di transmettre maanaam yóbbante message ku bataaxal boo xam ne moom Macky Sall daal dina ko jébbal xalif jamono yi nag seen objectif moo di dajalewaat APR ngir nag ñu daal di gën a boole seen doole doole ngir mën a waajal seen bopp ci yeneen défi yoo xamante nii mi ngi ñëw ci seen kanam ci boobule wàll ba tey jàppale ne ancien ministre bu Macky Sall bi di Alioune Ndoye daal dina jotaat ci postam bu ville bu Ndakaaru ba nga xamante ne ni conseil bi amaloon na ko taxawal ko ci lu jëm ci seeni liggéey daal nañ fa nemmeeku teewaayam moom jawrin bi Alioune Ndoye naka noonu bu Dakar Plateau bu ñu sukkandikoo ci yi nga xam ne suñu ñoon daal na ci delluwaat moom Alioune Ndoye daal dina jotaat ci mu am foofee ca conseil municipal bu ndakaaru ginnaaw nag ay absence maanaam ñàkk teewam ci boobu le bërëb ay giir nag ñu daal di koy nemmeeku li ni man nag jotoon sax samp ay débat ak ay wax ci wàll wi ci teewaayam ci boobu boobule séance daal dinañ fa nemmeeku loo xamante ne nii bette na lool gaawuñu koo gis mooy ay séquence d'accolade ak d'embrassade maanaam akub saafonte ci diggante député bu Pastef bii di Abass Fall ak yenn ci ay membre bu équipe bu maire bu ndakaaru rawatina nag Barthélemy Diaz moom mi fareef ci taxawu Sénégal li nag doon loo xamante ne nii guléet xaw ñu ko nemmeeku ci langue gi kookee nag di Aliou Ndoye ci li municipalité bi di waxtaanee jamono yi moo di dellu siwaat na ca bërëb ba te postam bam fa amoon daal na ko retrouver waat maanaam waat na ca poste ba nga xamante ne ni moom lañ ko joxoon ci biir municipalité bi jeexale xibaar yi ak coowal li nga xamante ni mi ngi ñeel quarante cinq milliards jëm nag ci contrat d'armement boo xamante ne ni daal dinañ ko accordé nigérien bi di Petit Boubé saa si nag mbir mi daal dina lu yees loo xam ne daal dina ca tukkee enquête la bi niki décembre 2021 mu jëm nag ci contrat d'armement bu toll ci 45 milliards moom Petit Boubé moomee daal di koy sekk amaana ak ministère de l'environnement ca loolee nag benn enquête bu renseignement financier bu Sénégal moom da cee daal di révéler nag ay mouvement de fonds yoo xamante ne ni ñeen na contrat d'armement ñu cay joxoñ Petit Boubé bu ñu sukkandikoo ci xibaar gi ni mel libération daal di ciy ñëw contrat gi dañ ko daal di signé ci turu Lavi ak David Benzaken ñoom ñëpp ay anciens ni moom mooy jaay lépp lu jëm ci wàllub arme israélien la fii Gabi Perez ñoom ñooñee nag seen famille dañoo daal tabax ak immeuble bu mag ci centre ville fii ci Ndakaaru bile contrat d'armement juróomi at a ngi nii ñu ciy topp renseignement financier sénégalais yi nag ñoom dañoo daal di fësal ak luubal goo xamante ne ni daal na ci nekk koppar gu takkoo takku te kii di Petit Boubé moom moo ko daal di fësal ci wàllu wi moom mi nga xamante ne ni moo doon suggéré ñu daal di de vin loo xamante ne dajale ba noppi confirmé ko mu ngi daal di fës ci rapport bi nga xamante ne ni Centif daal dina ko transmettre discrètement procureur de la République ngir mu daal di koy gën a mën a caytu coowal gi yëpp fii ci Sénégal la daal di xewee ndax ginnaaw gi Petit Boubé moomee ñu cay topp dafa tijji woon fii ci Sénégal ñaari compte bancaire ci turu société yooyee nga xam ne ci lu ñu yëngu jëm na ci jaayub arme maanaam ay gànnaay bépp koppar boo xamante ne ni daal nañ ko tudd ci bile contrat d'armement Lavi ak Eurocopit ñoom nag daal nañ ci jot a def ay virements yu toll ci trois milliards ci société bi di TSI am na ci ay retrait ak ay transfert d'argent ba février 2023 coowal li ni mel nag tudd nañ ci ay doomu sénégalais yu bëri ci koppar goo xamante ne ni jot nañ ko fee luubal ay transaction yoo xamante ne ni dafay lim xaalis gu takko takko waaye lu ci mën ci am rek moo di dossier bu petit boubé bi daal di ñeel quarante cinq milliards contrat d'armement la lépp loo xamante ni mu jëm ci ay gànnaay saa si tambe nag teg nañ ko ci table procureur de la république en attendant ñuy xaar ana lan moo cay tukkee mbokk ñuy teewlu si Jàllale TV fii la ñuy taxaw ak yéen jaajëfal leen bu baax si teewlu bi fàttali leen ngeen abonné ba si de notification bi ngir dara bañ leen rëccu ci suñu programme